بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi àndaat ak yéen ci al adab tey ñuy jël aadabu niya mu nekk ay teggin yoo xam ne jullit bi daf ko war a jàng xam ko di ko tegginoo borom xam-xam yi nee nañ kullu seyin ida kasura raxusa illa al adaba lépp loo gis ci àdduna su baree rek lamb lekk bu bare ndox su bare njaay mi bu bare loo gis rek su baree day lamb ñu ne ba mu des adab al adab rek moom lamb loolu moom teggin moom lu ci nit am rek du doy teggin teggin du lamb mukk ci àdduna leneen lu dul teggin nag dina lamb bu bare ba mu des teggin am nañu ko yàlla moom kon tey ñu ngi jël ci teggin yooyu tegginu yéene jullit bi jàng di yéene lu baax ci xelam ak xolam ne fu mu toll dafa war di yéene lu baax ne yuminul muslim bi xatari sha'ni niya jullit bi dafa war a yëg ne gëm ne yëg ne yéene danger la yéene danger la moo tax su yéene mu yéene lu baax wa ahamiyatuha li saairi amal addinia jullit bi yëgit jullit bi yëgit ne dafa am importance moom yéene ci mbooleem jëfi diine yi jullit bi dafa war a xam ne yéene dafa am solo ci mbooleem jëf yi muy jëf ci diineem yéene am na ci importance mu ne is jamiul amali tatakayafu biha mboolem jëf foo leen di fekk ñu formé wu foo leen di fekk ñu tegu ci yéene jamiul amal moo tax yonent bi ne moo tax yonent bi wax ci xadis innama al amalu binniyat yonent bi wax mu ne wa takunu bi xasabiha fa taqwa wa tadaaf ci yéene ci la mbir di baaxe ci la mbir di bone ci yéene la nit di amee tiyaaba ci yéene la nit di amee bàkkaar ci yéene la yàlla di faye nit ci yéene la yàlla di ñàkkee fay nit wa tasixu wa tafsudu ci lay wére ci lay yàqoo wa imaanul muslim haza bi darurati niya li kulli al amali wa wujubu islaahiha ne la loolu tax julit wala gëm ne ci nécessité yéene ci importance yu yéene ci la jëf yi di baaxee ci la yëf jëf yi di wére waaye ci la jëf yi di yàqoo moo tax borom bi tabaraka wa taala wax ci alquran wa ma umiru illa li yabudullah muxlisina lahu ddin man dey santuma leen man mii seen borom lu dul na ngeen ma jaamu waaye na ngeen sellal jaamu gi loolu loo ciy dégg mooy jaamu yàlla gi kañ lay sell su yéene bi wéree jaamu yàlla gi kañ lay bon su yéene bi bonee kon jaamu yàlla li koy wéral kon nit war na ko def nit war na góorgóorlu ba xam luy wéral jaamu yàllaam mu taxaw ci nit war na góorgóorlu ba xam luy yàq jaamu yàllaam mu sori ko mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ci xadis bi ñu waxoon sànq innama al amal wa innama li kulli imri'in ñu nee na jëf yëpp mu ngi aju ci yéene su yéene wéree jëf yi wér su yéene yàqoo jëf yi yàqu yonent bi waxaat na ne inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yàlla day du xool seeni jëmm du xool seeni alal yàlla li muy xool mooy xol yi ak jëf yi moo tax yëre yeeg melokaan yeeg yàlla du xool loolu yére yi dafa rafet gani laal ay or la takk sikkim bi daa gudd kaala gi dafa rafet tuye bi dafa cëkk yàlla xoolul loolu wa innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum ah li muy xool mooy sa xol lan la ci denc sa jëf yi lu ci nekk jëf ak xol la yàlla di xool su xol bi baaxul jëf ji du baax su xol bi baaxee jëf ji baax maa fil qalbi yazharu fil wajhi li ci xol day feeñ ci kanam gis nga képp ko gis kanam gi ñàng suy def di def lu baax xam nga lu ko waral xol bi moo baaxul borom xol yu bon yëpp borom xol yu xat yëpp seen jëf du mën a baax waaye képp koo gis mu yaatu mën a encaissé mën a muñ xol bi moo baax xanaa yàlla baaxal sunu xol mu ne fanzur ila alqulub fa nazru ila alqulub nazrun ila niyaat bokk yi xool gi yàlla di xool xool yi xam nga lu mu tekki lan moo nekk ci biir xol bi ba yàlla di ko xool lan moo nekk ci biir xol bi ba yàlla di ko xool mooy yéene bi mooy yéene bi xool bi yàlla di xool xol yi yàlla lan la ci bëgg xool mooy yéene bi fa nekk la yàlla di xool ndax yéene bi baax na wala baaxul is anniyatu hiya albaa'isu ala al amali ndax yéene mbokk yi moom mooy alimenté jëf mooy puus nit mu def lu baax mooy puus nit mu def lu bon moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na man hamma bi xasana wa lam ya'malha kutibat lahu xasana rawaahu muslim yonent bi nee na képp ku yéene lu baax defoo ko yàlla dala koy bindal tiyaaba allahu man am naa yéene woor suba ni yéene ko soxal bëgg ko yàlla daf nga yeewu mënoo koo def ndax dangaa feebar wala wala wala wala nga am tiyaaba ñu bindal la woor dama xëy suba bëgg naa saraxe nga xëy suba la nga doon saraxe nga fekk ñu ne ko doññet yóbbu wala mënatoo cee jot yàlla bindal na la tiyaaba ndax yéene nga woon ne damay def lu baax fa bi mujarradi alximma assaaliha kaana al amalu saalihan yasbutu bihi al ajr wa taxsulu bihi al masuba fi nga jóge yéene jëf ju baax looloo tax sa jëf ji ngay def baax looloo tax yàlla daal di la ciy fay lu baax allahu akbar moo tax yéene mooy diin xoolal bi nga jógee ne man incha allah mbir mi dinaa ko def ba mu baax dinaa ci dox ba mu baax dinaa ci wax ba mu baax dinaa ko liggéey ba mu baax di nga defee loolu rek yàlla fay na la dangaa def boo xam ne rek yàlla fay na moo xam baaxal nga ko moo xam baaxala gu la ko yàlla fay na la sori mi nag boo ko baaxalee yàlla gën a renforcer fay bi yal na yàlla baaxal suñu mbir te yàlla daf la ciy fay wa zalika li fadilati niya as-saliha xam nga lu tax yàlla fay la ndax ngëneelu ngëneelu ngëneelu yéene bu rafet bi la la yàlla fay ngëneelu yéene bu rafet bi looloo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na annaasu arbaatu nit ñi ñeent lañ nit ñi ñeenti nit lañ rajulun ataahu llahu azza wa jalla ilman wa maalan benn waay la boo xam ne ku njëkk ki yàlla daf ko may xam-xam ak alal fa huwa yaamalu fi maalihi moom muy liggéey ci alalam di ci def lu baax di ci jaamu yàlla fa yaquulu moom waajooju mu ne fa yaqulu rajulun law ataani allahu taala misla ma ataahu allahu la amiltu kama amila wa huwa fi l ajri sawa nit ñi ñaata nit lañ kan moo njëkk benn waay boo xam ne yàlla may na ko xam-xam ak alal mu ciy jaamu yàlla keneen ki daan ne man de bu ma yàlla mayoon xaalis dinaa mel comme kee dinaa jaamu yàlla ma def lu baax ñoom ñaar ñëpp yàlla fay na leen kële lan la ko yàlla fay jëf yi muy def keneen ki lu ko yàlla fay yéene bi mu yéene ne bu amee alal dina mel ne kee keneen ki wa rajulun ataahu llahu maalan wa lam yutihi elman fa huwa yaxbitu fi maalihi gi moom yàlla ko may xam-xam alal yàlla ko may alal waaye yàlla may ko xam-xam mu jël alal ji di ci def lu bon di ci làmbat xamul lu mu ciy def xamul lu baax buñ ko tuddee gàmm mu financé buñ ko tuddee sabar mu financé buñ ko tuddee ndaw rabbin mu financé buñ ko tuddee soirée mu financé buñ ko nee daara mu joxe maanaam moom xamul lu mu war a def ci alal ji beneen waaye daan ne man bu ma amoon alal dinaa gën a def lu bon li muy def moom tamit yàlla fay ñoom ñaar ñëpp yàlla fay na leen lan la leen yàlla fay parce que lu bon la ñuy def mu ne fa usiba zuniyati saalih bi sawaabil amali saalih gis nga ki yéene woon lu baax lan la ko yàlla fay tiyaaba yéeneen bu baax ah wa wuzira saahibu niya alfaasida bi wizri saahibil amali faasid keneen ku mujj ki nga xam ne moom amul alal waaye dafa gis ki nit ñi di def lu bon ci seen alal rek mu ne bu ma yàlla mayoon dinaa tabax baar dinaa tabax baar dinaa tabax stade dinaa dinaa dinaa lu bon yooyu mu yéene yooyu la ko yàlla fay yooyu la ko yàlla fay moo tax nit suy yéene ne yéene yéene bu baax mbokk yi wa kaana muraadu hada ila niyatin wahdaha gis nga ñoom ñëpp seen yéene kee dafa yéene yéene bu baax kii yéene yéene bu bon loolu moo tax kenn ku nekk ci ñoom ñaar loolu la leen borom bi tabaraka wa taala fay ndeysaan yonent alayhi salaatu wasalaam da doon xeex xeex bi tudd Tabuk mu ànd ak saxaaba yi ñuy dem mu leen di jàngal yéene bu baax mu ne leen inna bil madinati aqwaman ma qata'na waadiyan wala wati'na mawti'an ya'izu lkuffaara wala anfaqna nafaqa wala asabna maxmasa illa sharakuna fi dhalika wa hum bil madina yonent bi dafa wax grave sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ku dégg ñu wax yonent dafa war a wax sallallahu alayhi wa sallam ku dégg ñu ne Muhammad dafa war a wax sallallahu alayhi wa sallam ku wax ku dégg ñu ne rasulullah dangaa war a wax sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy wane ne yow bëgg nga yonent képp koo xam ne da ngay dégg ñu ne yonent mbaa nga dégg ñu ne rasulullah wala nga dégg ñu ne muhammad nga ni teg anta baxiil yow da ngaa nay te ku nay du dugg aljanna
yonent bi nee na am na ay ñoo xam ne ñoo ngi ni tey ñun dem di xeex ñoo ngi nii di xeex yi ay nit a nga ca Medina toog ñoom de dagguñu benn xur ñoom de wàccuñu ci benn àll ñoom de joxuñu benn jéego buy merloo yéeféer ñoom de joxewuñu seen alal ñoom de amul lu metti lu leen dal waaye ñun tiyaa bu ñu am ñoom ñoom ci ndeysaan wala rek yonent baa ngi dem di xeexi de ñee nga tëdd seen kër Medina waaye terewul ñooñu tiyaab bu yonent bi am ñoom ñu am ci lu tax ah dañoo yéene ñu nga Medina tëdd de waaye seen yéene mooy lan ay tey ñun bu ñu wéroon ay ñun tey bu ñu yonent bi yóbbaale ko wallah yonent bi fu mu xeexee ñu xeex allahu akbar moo tax seen yéene la leen yàlla may mu ne yonent bi nee na ñun tey ñu ngi nii di dem di xeexi waaye tiyaaba bu ñu am gaa yooyu dinañ ci am sahaaba yi daal di waaru ne ko kayfa zalika ya rasulallah loolu nu mën a nekkee yow yonent ñun ñu ànd ak yow di wàcc ci xur yi di yëg ci montagne yi ñaq tooy xëpp mar xiif di xeex ak noon bi ñee tëdd seen i kër am tiyaaba ñun bu ñu am yonent bi nee na xabasahumul uzru fasaaraku bi husnil niyya allahu akbar ñoom de dañoo am ngànt waaye seen yéene la leen yàlla di fay ndeysaan dañoo am ngànt ngànt gi mooy lan mooy kii dafa feebar mënul ànd ak ñun waaye yéene ci xolam ne bu wéroon tey ànd ak ñun loolu la ko yàlla fay kon yéene nañ koy defaral fa husnul niyya yéene bi yéene bu rafet iz huwa allazi jaala غير الغازي في الأجر كالغازي غير الغازي في الأجر كالغازي mbokk yi yéen bu rafet moo tax ki xeexiwul am tiyaabay ki xeex غير الغازي في الأجر كالغازي waa jaa ngi ne la toog xeexiwul àndul ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ñi ànd nañu ak yonent bi waaye yàlla daal leen di boole ñoom ñëpp tollale leen tiyaaba lu tax kee dafa am ngànt jabaram mooy matu ñu ko fee bàyyi dem moom dafa feebar wala amul fas bu mu war wala amul ngànnaay bu mu yore kon am na ngànt waaye yéene ci xolam dafa yéene ba toog di jooy ndax bëgg a dem yonent bi ne ko munoo dem ndax aw ma fas bu ma la teg aw ma mbaam boo war aw ma gëléem boo war te aw ma jaasi bu ma la jox te nit du xeexi xanaa te yorul ngànnaay waaw nit yenn saa yi ni nga gis kuy xeexi te yorul ngànnaay nu muy mel kan moo may jox misaal boobu kuy xeexi te yoroo ngànnaay déedéet ku bugg a tontu nekk ci loxoom am na koo xam ne day xeexi te amul ngànnaay te bés bu nekk man ma gis ko bés bu nekk ma gis kuy xeexi te amul ngànnaay keneen daw yaa mu ngoog élève buy jàng te amoo bi amoo bagage yaa ngay xeexi te amoo amoo ngànnaay élève buy jàng yoroo bi yoroo dara yoroo fooy bind yow da ngay dem jàngi da ngay xeexi te yoroo ngànnaay mu ne wa jaala gayral mujahid yaxsulu ala ajril kal ajril mujahid yonent bi alayhi salaatu wasalaam tollale na fay ki demoon jihaadi ak ki jihaadiwul moo tax yonent bi ne iza altaqa almuslimaani bi sayfayhima falqaatil walmaqtulu fi nnaar fa qiila ya rasul allah هذا القاتل فما بال المقتول قال لأنه أراد قتل صاحبه yàlla yónni woon ci jaam ñi nee na ñaari jullit seeni jaasi bu dajee ñu ne ko rëm ñu duurante ko yeneen bi nee na fal qaatilu wal maqtulu fi naar ki rey ak ki ñu rey yëpp safara la jëm ñaari jullit bi ñuy xeex benn jullit bi rey benn jullit bi ñaari jullit yi ki rey ak ki ñu rey yëpp safara la jëm ah saxaaba yi ne yonent loolu nu mun demee loolu mooy lan kee ñu rey ko ba pare mu dem safara ñu waaw ki ñu rey lan la bëggoon yëkkati na jaasi keneen ki yëkkati jaasi ñoom ñaari ñoom yëpp jaasi ku nekk loo yéene sa xol rey sa morom moo tax jullit du yor arme jullit du yor ngànnaay su fekkente ne nag daf laa fekk nga tëdd di nelaw mu ñëw daaj gi sa kër yor ay armam bëgg a jël sa alal nga jóg mu jël jaasi jublu la nga génn sa pistolet ni ko ko pam su boobaa nag yow bokkoo ci boobu lu tax wala mu doon agresseur ci mbedd mi gis na la ngay dem rek xamul lu nekk say poos rek mu daw ñëw poñe la ne la indi alal ji indi li nga yor comme gars yi léegi li ñuy def indi li nga yor nga ne ko yor ma dara mu mu génn jaasi xaaj nga génn sa pistolet ne ko ko pëm mu dee yow duggoo ci masala boobu masala bii mooy kii daa génn këram ak jaaseem kii génn këram ak jaasi ñu daje ku nekk ba muy dem dane maa ngi koy rey ñoom ñaar ñu ne pëm kenn ki daanu kenn ki taxaw ñoom ñaar ñëpp safara lañ al qaatilu wal maqtulu fi nnaar sahaaba yi ne yonent loolu nu mun demee fa qaala li annahu araada qatla saahib mu ne ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk da ngaa bëggoon rey sa morom mu ne fa sawat al yina al faasida ñoom ñaar ñëpp seen yéene bu bon moo daje wal iraada ak sayyi'a seen nammeel bu bon moo daje kenn ku nekk ba ngay génn sa kër da nga woon maa ngi koy rey xaaral ma dem rey ko te ñëw kon mbokk jullit yi dañ leen ragal yàlla ñu defar suñu yéene ñu am yéene bu rafet ci suñu jaamu yàlla ñu am yéene bu rafet ci suñuy jëf ñu am yéene bu rafet ci suñuy mbokk ñu am yéene bu rafet ci suñuy xarit ñu am yéene bu rafet ci lépp loo xam ne dañ koy def yenent bi alayhi salaatu wasalaam nee na man tazawaja bi sadaqa laa yanwi adauha fa huwa zanin wa man addaana daynan wa huwa laa yanwi qadauha fa huwa sariq ñaari nit a ngi ni kii sàcc la xee njaalookat la te jëluñu te sàccuñu de kii sàcc la waaye sàcc ko kii njaalookat la te te jabar la yor ku may tontu tontu boobu kii dafa yor jabar waaye njaalookat la te demul ci kenn de ci jabaram la yem waaye njaalookat la kii moom alal ji mu yor def ko sàcc te nanguwul alalu kenn loolu nu mu demee ku bëgg a tontu yëkkati sa loxo da lay dégg du loolu déedéet kooku yéene bu bon la am ci xaalis boobu kii moom xaalis bi mu ngi mu ngi ci moom mu ngi ciy noos mu ngi ko jël di ci lekk waaye sàcc la te dajjiwul buntu kër kenn kee moom jabar la yor juñ ko may muy fanaan ak moom te day njaaloo kenn xamu ko bismillah yow moom bul wax yow waaw déedéet borom jabar jabar ji njaaloo wala kenn waaye njaaloo ko moom ci waa ji moom boppam ci waa ji moom ku góor ki moom mooy njaaloo ku jigéen ki njaaloowul danga am tontu ki am jabar tey njaalo mooy ki takk jabar yoreel ko can waaye takki jabar da ngay joxe can xaalis léegi nag nga ni ko jigéen ki cent mille laa la waroon jox mais lebal ma ndaw si ne la waaw mbokki ndaw si ne la waaw yow nag yaa ngi yéene sa xol duma leen fay tus waaye yóbbu naa sama jabar yow njaaloo kan nga ki sàcc xaalis ki yor xaalis ah ci këram di ci noos te sàcc la mooy ki ñëw ci nit ne ko lebal ma 100000 dinaa la fay mu jox la ba pare nga naan uy kii du laal tus kii daal ko na kii de du laal lan la yéene sàcc la yéene woo dangaa yéene ne doo fay sàcc nga ñaar ñi ay sàcc lañ koy njaalookat lañ ki takk jabar yoreel ko can yéene na du ma ko fay njaalookat la ki leb alal yéene na du ma fay sàcc la papa lebal ma 200 papa du ma ko fay sàcc nga mooy lan de chaque jour ñu def ma ko fii papa alma 200 papa alma 500 ma joxe te xam seen yéene ma ñëpp ay sàcc nga waaw ragal leen yàlla dërëm sax boo ko àbbee danga ko war a delloo wala nga ñëw ne may ma suñ la mayee baax na buñ la buñ la lebalee baax na waaye nga am yéene ne dinaa fay waaye bis boo nee papa alma 200 ma génne sama 200 ne la am nga sàcc 200 yi fayoo sàcc nga de nga jël 200 yi fayoo sàcc nga ndax lan nga yéene waaw yonent bi nag moo ko wax man waxuma ko man dama leen koy leeralal rek mbokk mbokk yi fa niyatu sayya inqalaba al mubaax haraaman yéene bu bon moo taxoon lu baax li tey araam lan moo baaxoon sëy lan moo baaxoon leb waaye gis nga yéene bu bon moo tax ñaar yi daal di mujj yàqu ba sëy ba nekk njaaloo leb ba nekk sàcc wal jaiz mamnuan la daganoon ñu tere ko wa kaana xaaliyan wa ma kaana xaaliyan min alxaraji asbaha isa xaaj mu ne la nga xam ne dafa baaxoon tey ji mujj na nekk lu bon sëy dafa baaxoon waaye bu fekkee da nga yéene sëy te doo jox jigéen canam nga yéene ko soxol yonent bi nee na yow njaalookat la li sëy di baax baax baax yow tey ji njaalookat la doom joo ci am doomu njaaloo la boo lebee alal fas yéene woo fay sàcc nga lépp loo am ci alal jooju araam na kullu haza yu akkidu maa yataqiduhu lmuslim fi xatari niya gis nga lii yëpp day dëgëral di feddali danger bi nga xam ne yéene bu bon bu nekk ci xolu jullit bi am na ko ak mbir mi ngi ni mu ni nga xam ne noonu la garaawee kon kenn ku nekk ci ñun na nga fexe sa kemtalaayal kattan ngay defar sa yéene ba mu baax ndax kat yàlla xam na li ci xol yi lépp loo yéene bu dee li nga yéene li bon rek nga ci namm lu bon rek ngay am foo romb lu bon la loo def lu bon la ndax sa yéene waaye bu dee lu baax nga am li nga namm soo joxewul sax yaa ngi am tiyaaba ndax yéene bu baax ngay am wa kama yataxidu almuslim anna niya ruknun al amali wa surutiha jullit war a gëm fas ne yéene ponk la ci kenoy jëf ju baax ak ay chartam waaw an niyatu ruknun bi itibaaril bidayati wa bi itibaaril istimrar yéene ponk la ci yaa ngi jëf jëf ji di ko commencé waaye charte la ci yaa ngi def jëf ji di nga ko continuer gis nga yaa ngi yéene ne man de ah dinaa jëf jëf ji waaye maa ngi koy tàmbali nii am nga tiyaaba nga yéene waat en charte bi mooy nag jëf ji kat su ma ko commencé du ma ko bàyyi dama koy continuer ba ba may dee gis nga charte bi mooy loolu yéeneel yéene bu rafet waaye charte yéene mooy jëf ji bu fekkee lu baax la danga koy continuer doo ko dog dootoo ko bàyyeeti fa in yara anna niya laysat mujarradu lafz bil lisaan allahuma nawaytu kaza déedéet mun a yëg leen ne yéene du rek nga taxaw ci sa làmmiñ naan man de fas yéene naa comme paa yi ni ñuy def ci jàkka yi bu ñu li xaamee ba pare nga gis imaam bi nga xam ne imaamu bidaa la du imaamu sunnit xamul sunna nga dégg mu naan waaw bismillah fas yéene julli julli suba bisu dimanche ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru safar ñaari rakka la allahu akbar loolu moom du lu baax kenn du yéenee noonu yéene du lu ñuy wax ci laam yi rek kaza fas yéene naa yéene déedéet yéene ci xol lay nekk yéene ci xol lañ koy def ci xol lañ koy fas wala hiya hadisu nafs fahsab bal hiya inbiasul qalb nahwa al amal yéene mbokk yi du lu ñuy génne ci làmmiñ rek mu nekk wax juy génn ngelaw luy génn gémmiñ guy yëngu làmmiñ guy tourné déedéet waaye pas-pas la bu nekk ci biir xol nga xam ne bu ko xol bi di fas yaram bi yépp moo koy yëg ne kat kii dafa bëgg a def lu baax mbokk yi fal muslim is yataqidu an al amal al mubaax yanqalibu bi xusna niya taatan zaatu ajrin wa masuba julli na yëg ne pas-pas bu ñu fas ci xol mu nekk pas-pas boo xam ne jëf ju baax moo tax ñu fas ko taatun zaatu ajrin topp yàlla goo xam ne topp yàlla guy am fay la waaye gu ñuy def ci tiyaaba wa anna taa ida xallat min niyati saalih tanqalibu maasiyatun zaatu wizrin wa uquba jëf bu ci yéene ju baax génnee dafay mujj soppeeku jëf ju bon dafay mujj fekk soppeeku yéene bu bon boo xam ne bàkkaar nga ciy jële ak mbugal yàlla ñu yàlla musal kon maa ngi dénk sama bopp maa ngi leen di dénk yéen samay mbokk jullit na ngeen di sellal seen yéene sellalal seen yéene seen digganteeg seen borom sellalal seen yéene seen digganteeg seen yonent sellal leen seen diine seen diggante ak seen téere Qur'an sellal leen seen yéene seen diggante ak seen i wayjur sellal leen seen yéene seen diggante ak seen i mbokki jullit sellal leen seen yéene seen diggante ak seen diine yàlla day fay yéene su baaxee yàlla fay ko su bonee yàlla fay ko kon nag sellal leen yéene yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na wa innama li kulli imri'in ma nawa kenn ku nekk li nga yéene ci sa jëf rek loolu nga am ku yéene am yàlla ak yonent fa hijratuhu ila allahi wa rasulihi yàlla ak yonent dina la fay képp koo xam ne sa yéene mooy àdduna wala caaxaani àdduna wala bànneex fa hijratuhu ila ma haajara ilay sa yéene boobu dem na ca la tax nga yéene ñoo ngi ñaan yàlla jàlla fi ula borom asamaan ak suuf mu nangul nu nangul leen ñoo ngi ñaan sunu borom mu saxal ñu ci njub ñoo ngi ñaan sunu borom mu sellalal ñu sunu yéene ñoo ngi ñaan sunu borom mu sellalal ñu sunu pas-pas wéral ñu ko dëgëral ñu ko aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh